yéen réew mi déglu leen xeram Seex Faalu doy na ma xalam gëlim ju fiiru na këfam wéetal na mboolem xarnu bi Seex Faalu Mbàkke daana wax nan sax tuub saki sarax baloonte ak lii du nax lii la baye waa xarnu bi fallu lewet safoon xoram te yaataloon na abu xolam yéen réew mi nii war ngeen ko gëm fallu di falum xarunu bi ku tooñ ba demu fa moom mu fat kii ma sunu feex fum tollu xat ci yàlla seex fallu ka mat moo jaaxaloon waa xarunu bi ki lay borom di ndee bogo defoon na boppam ab dongo ci ak gudam daawul sagu te moo gënoon ci xarnu bi ku wopp dem fa moom mu faj alaaji boobu am na aj bam fi jógee rakam di faj Cheikh Abdoulaye tam xarnu bi te doom ja fagguloon na ko rakam ju baax ja wutu ko Cheikh Moodu taaw ba donnu ko di faj ci tiisi xarnu bi Cheikh Bamba way yonent ba Cheikh Fallu di doomi Cheikh Bamba ma way ci ñi man baama baale ñooñi moo waa xarnu bi laylatu maa li diina bi laylatu maa wiriya bi kon naa ko seex bañ koo yabi bambay ki féexal xarnu bi kama xat kunu tataamul ya xadiimi ceex faloo ka yaa te la mu jëfoon refen na yaa faloo di falum xarnu bi mooy doomi maam awa buso mooy baayu ceex muudu buso jant ba fenkoon far na so jooy koy li war waa xarnu bi kiley borom mbindeef boogo defoon na boppam abu dongo ca ak dundam daawul sago te moo gënoon ci xaru bi kurwaale cim danoor la am lu ma sene waaw day dal am te lum bañaa dootu fi am ki moo rawoon ci xaru bi kenn ma so ci dem amul doo gis ku yen du xiib añul gisuma ci moom lu nii si kël fa ki botoon xaru nu bi salaate jëm jëkkiinu wariyu mi mbaa da ngeen nangu bëccëg ba kenn talul sangu keroog yëngal na xarnu bi ñii ñee fa ñey saret ñe bare di doxu ni buñu saret ku nekk naan tareet tareet di yuuxu mboolem xarnu ñu tegu ca ay fan fallu dem ñe samu ko ñee rang ñee wedam wariw mi ñëpp lay gërëm nde yaa yoroon waa xarnu bi yaa daa faral waaju labaj ceeb ba lu tax diisu ko tëj moo daa li jënti mbir mu lëj da daa fajal waa xarnu bi bar sax gis ngeen nim ñu def foqar ci ceeb fa lu ne fiif duniyaa du bor dootunu saf moo yàgg war waa xarnu bi ku ñàkk waayam yaa ko war ku réer ne laaj ko moo ko for day siib te lii mooy li ko war moo yóbbu seexi xarnu bi yónneen ba ndéeg moo xëy nemes Seex Bamba dem kenn du fi des ba siiru dem duniyaa du rus nde kon mu rus waa xarnu bi Seex Gaynde Fatma moo kawe te nag la gis fu muy jëwee te jii nu dem fu nii rawe xanaa ci laatam xarnu bi Cheikh Abdourahman Boo la dem Cheikhu mi doomi Fallu dem Fallu amoon ngërëm te dem te mooy kiiroon xarnu bi kon déglu lu leen ne mbaama taxaw Cheikh Fallu day mbayam baxaw kuy bay yaakaar sax mu taxaw mbaatin sa jaat ci xarnu ku waroon di way ñu lay wayal boo déglu lu sa xel guddul bañ a ba liggéey loo romb jël te ngeen a déglu xarunu bi abu yéya moom jarulu gërëm amuñu bu yar amuñu dërëm xamuñu te duñu déglu ba xam lu ñuy jariñ ci xarunu bi bu kenn doon des fallu des jëmama ca dem na jëf ci des way nun fu nuy jëleeti asbax gaa dajoon waa xarunu bi fu fallu jëm nu ñankoor di ñaan fanam la saxe dëgër ci waaja daa faj aw naqar wayam du tuut ci xarnu bi ki nee demoon ba Makka sax waa Makka naa ko rëmata kaay wan ñu néew ñoolu te jommal na gaayi xarnu bi ba mu leen wanee waa Makka sar naa fallu ñu na taw ba wër ñu xam ne Cheikh Bamba ko jur moo jiite mboolem xarnu bi Cheikh fallu taw ba ndox ma wal waa Makka naa kii lañ ko jël tëj ko ci ne fay ko alal baatin la am ci xarnu bi Cheikh Anta Baay ba dal di jóg naa leen lu ngeen joxoñ ma dog te ngeen bàyyee ma fallu rek Tuubaa la jëm ci xarnu bi nijaay yaboo xam-xam la am ki jaayilul islam la xam murid yi war nañ koo gërëm sun la woon ci xarnu bi bañ laata dem ku nekk ne Cheikh Fallu Mbakke dal ne ruu yëpp sa poos bii la ne kenn du fi des ci xarnu bi allah ji duni jabar duñ wali lambu duñ sabar te teeku ñoo ngeew doole boru te nañoo waagaru nubi duñ doxo di jaayoo ka jayu te duñu fayantoo ñooy royu ku weedi ñi gënoo yaa gën bon ci xaru nubi alaaji boo gis muy aju ay bor la peese te du dëju fu mu gis jigéen danaa xujju yaatu na lool ci xarunu bi alaaji reere xaaju xar fanaani fum amul jabar du toog ba jëlu quraan na far gënul njéréer ci xarunu bi wuute nanoog fallu galas kadaa fanaa peeyu aras te ñooy xata lambang babas ñoo di wula jël ci xarunu bi wuute nanoo fallu galas kadaa fanaan piiyu aras te ñooy xatal làmbang babas ñoo diwle jël ci xarnu ndax lu ne kundung gaaya taxaw te bu taxaw falaay taxaw ku ne danaa tugg kaw defee ne yaa moom xarnu ajeeg alaaji bi xayam kenn jubatul lii ku ko xam te seen alal ja day xajam ñoo daka mooy ci xarnu bi alaaji buy lëndëm tuji yow lay waxal loo doon aji am na ñeneen ñu dem aji duñ def lu ñaaw ci xarnu bi cheikh jili foore laa ko des alim la yaaramu la durus sadaqata yaay ndabalu wurus yaay ilimaani xarnu ku koy siyaara doo torox yow mal xiyam doo fa xarnu ca kam binaari bay jaraama jilim xarnu bi siyaara madina tëgali mbagam te naa yor biir bu tol ni ak mbana naan sangara waa xarnu bi siyaara madina tëgali mbagam te naa yor biir bu tol ni ak mbana naan sangara waa xarnu sa xel mi dem na aliya daray galas caaliya wusoon na jeegu aliya muy root di yot waa xarnu bi Seex Fallu def na fii lu ne moo tax amoon na ni du ku ne teral na mag yar na wu gone dem na demal waa xarnu bi ca falu géej la daanawal matoona yit andaari njël boole kelum amaanu jël ba nim tagoog waa xarnu bi ca falu géej la daanawal matoona it andaari njël boole celum amaanu jël ba nim tagoog waa xarunu bi buñ julli waa bam jëm këram ñu sënk naas ba bam lëndëm murit yi lii daw naw yaram fi lay taxaw ci xarnu bi ku dégg lii nay ma gërëm ñaanal ma yàlla may ma ndam fan wu gudd ak wér gi yaram ak siiwa siiw ci xarnu bi way wile maa ngi ci dagaan wërsëg wu bawaan ak leneen ci barke Seex Fallu amin mu daje ba war waa xarnu bi sama jigéen